xaw na mu ne moom ci li mu am pour créer benn cohésion sociale comme ni mu koy waxee et aussi pour montrer la démocratie ñun bi ñu am bu dëgër la et tout ce qui disait que ni il veut éliminer Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko pour am troisième mandat après li nga xam ne moom moo di les procès léegi li mu décidé moom mooy gracier Ousmane Sonko pour créer benn situation boo xam benn élection boo xam ne si élection euh, euh, bu libre. mais boo xam ne inclusive lay doon à partir de la grandeur moo ciy feeñ. parce que gracier du tax mu mu mu mën a def une élection non c'est-à-dire c'est-à-dire après après procès yi avant conseil constitutionnel mënoon na pour pour wane boppam ni que ni moom li ko nit ñi tuumaal que ni dafa bëggoon éliminer Ousmane pour. gagné élection yi wala pour dara mais mu gracier woon ko teg ci lii ni carrément da koy def pour wan Sénégal yi amu ci benn intérêt que le meilleur gagne il allait il allait sortir euh, par la grande porte mais léegi lii ni kenn comprendre lan la léegi fi mu toll nii ñun ñi doon wax ñëpp maintenant suñu vie day gën a nekk en danger et si demain de te dañ xaar loolu bu ñuy bàyyi Ousmane Sonko faut pas que ñu ñu cak cak ko génnee ko yóbbul ko ba këram bàyyi ko foofu non nañ ko permettre depuis palais euh, fu muy génnee nu mu tuddati ca kaso ba muy génnee ba këram na ko permetre ay militant am de jëli ko. et à partir de là lan mooy am mooy ñetti manifestation lañ nara a assister mu nar changer li nga xam ne moom moo di les choses manifest euh, manifestation génnee Ousmane Sonko kaso bi ba këram. li nga doon bañ ak le préfet ak le gouverneur ni ko jaaral fii pour nga dem tribunal dinañ am pur et ils vont l'accepter et les Sénégalais vont supporter ça malgré ñun on va devoir supporter la sorte de prison de Ousmane Sonko ak benn ful boo xam ne du fi mës a am et ça moom du ma ni sax bi Sénégal jëlee Coupe d'Afrique mais attendons de voir pire et loolu mooy am et on le souhaite maintenant beneen bi mooy aussi préparer aussi retour Karim Wade. dinañ ci ñëw. Mm-hmm. alors euh, euh, Serigne sa sa sa avis ak sa gis-gis par rapport ak tout ça euh, li ñuy gis ci suba ba tey assemblée. waa xadi man déjà li ma si njëkk a jàngat mooy réew mi du ma ne kenn mënu ko defar waaye réew mu jafee defar lay doon. parce que la malaise est tellement tellement tellement profond et c'est un malaise institutionnel xam nga dañuy wax ni pouvoir mooy arrêter pouvoir mais malheureusement. ci Sénégal bi ñu nekk y un groupe de personnes wala un seul individu qui détient tous les trois pouvoirs moo tax dañoo dem ba dañu nekk dans une situation bu nga xamante ni jafe na ci yenn ci pouvoir yi ñu arrêter l'autre pouvoir bu dee justice bi yaa ko yor yaay xool ku la neex nga tëj ku la ne sa bët bi suuf a ngi si nga jàpp tëj yaay xool xool ku la neex itam nga génne parce que loolu moo fi des loolu moo moom moo fi feeñ ci li fi amoon ci arrestation yu bëri on a même réussi à installer une justice à deux vitesses kumba am ndey kumba amut ndey loolu nag li ko waral mooy li ma la wax sànq y a un seul personne bu yor ñetti pouvoir yëpp boof ci te loolu daa feeñ ci assemblée nationale bi lu mu bëgg jarul sax réfléchir day jàll parce que yor moo yor majorité bi donc dañoo dem ba affaiblir assemblée nationale ba député yi taxawaay bi ñu war a taxaw xam ni dignement bu ñu nekkee fële dëgg la ci list président Macky Sall lañ jàllee mais nañu xam ni ci dooley askan wi la ñu jafandiku ba nekk ay député député dañuy faral di wax ni du fonction du fonction c'est un mandat qu'il faut exercer au nom du peuple sénégalais kon nag foofu lu ñu fa war a wax ak lu ñu fa war a jàllale dafa war a nekk dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais mais malheureusement loolu bu amut bu fekkee amul pouvoir buy arrêter pouvoir jàppal ni c'est la monarchie monarchie mooy am parce que buur bi moo fi nekk mooy dogal lu ko neex maintenant nag ci pro ci ci loi bii ñu wax nii man pour man kooku suma ultime conviction la et suma analyse personnelle la man pour man sax Pastef dafa war a gën a vigilant dafa war a gën a prudent par rapport à cette loi là gis nga loi bi ku jàpp ni Pastef fa tax ñu def ko yaa ngi nax sa bopp cette loi est faite contre Pastef parce que am na lu Kader wax léegi yàggul dara. ci espace public bi am na lu ñu fi doon waxtaane ba di tudd ni am na protocole de Cap Manuel bu am le président Macky Sall ak Ousmane Sonko gis gisee nañ waxtaan nañ quelque temps après on a entendu des journalistes de renom yu jël loolu di ko théoriser di ko dëggal ni am na mais foofu question bi ñu waroon a bi ñu waroon a poser mooy est-ce que amul lu ñu doon préparer est-ce que nekku ñu woon di préparer opinion bi parce que mm, le président Macky Sall wax na ni moom yàgg na wax na ni loi d'amnistie day ñëw maintenant est-ce que bëgguñu coïncider cette loi d'amnistie là avec la sortie de Ousmane Sonko pour wax ni voilà li ñu leen waxoon am na dañoo waxoon négocier na ak président Macky Sall moo tax loi d'amnistie bi daal gis ngeen génn na jël na xëyandoo gis ay ñu baree bari ñu génnee leen mais malheureusement Ousmane Sonko.